di nuyu di rafetlu ànd beeg Sénégal 7 ñu ngi euh, dellu saat fii ngir waxtaanee réew mi ak euh, situation bi nga xam ne moom la euh, Sénégal di dund actuellement une situation boo xam ne ça rappelle à la fois mars 2021 mais également un peu plus en arrière 2011 bi nga xam ni les Sénégalais se sont s'étaient levés pour xeex ngir démocratie jóg taxaw après ak yi nga xam ne amoon nañ ko yëpp tey ñu nar a delluwaat un peu euh, ngir euh, euh, defaat xeex boobu nga xam ne amoon nañ ko en 2011 ba ci événement yi nga xam ne amoon na en mars 2021 ba tey ba démb ba li nga xam ne amoon na yëpp bi jamono bi nga xam ne Ousmane Sonko mu ngi doon dem tribunal ngir wuy ji ci procès bi nga xam ne procès en diffamation la mu dox diggante ak. ki fi nekkoon ministre de tutelle di Mame Mbaye Niang ministre de tutelle bu Prodac di Mame Mbaye Niang alors tey nag dañuy waxtaanee loolu ñëwaat ci journée bu 16 mars bi euh, kenn ci acteur politique yi nga xam ni teewe woon nañu journée bi accompagner c'est euh, euh, que son collègue di Ousmane Sonko collègue de l'opposition moom daal dina dund li xewoon yëpp ñu fas yéene ànd ak moom ci entretien spécial bi waxtaanee également ci ni nga xam ne euh, moo soxal réew mi di ko am mbégte di ko dalal encore une fois mun Maïmouna Bousso leader du mouvement Euh, force citoyenne nekk membre ci coalition Yewwi Askan bi ñu koy dalal di am mbégte Maïmouna Bousso dalal jàmm ci Sénégal set ñu ngi leen nuyu dina dalal la. sëñ Abdou Khad maa ngi lay fay. ci mm-hmm. la nuyu di kontaan comme d'habitude ñëw fii. Mm-hmm. di nuyu mbokki Sénégal yëpp ak mm-hmm. internet ñi ñuy seetaan di préciser rek ne tey plus may euh, Maimouna Bousso citoyenne. moom la ñu am en face de ñoom que Maimouna Bousso membre d'une coalition wala d'un mouvement. parce que sama tànk keroog ci wetu Ousmane Sonko malgré li mu nekk leader de PASTEF tànki euh, citoyen la mhm. citoyen buy xeex benn régime ak ay dérive am depuis 2011 2012 ba léegi euh, mu nekk ci continuité logique ci sunu citoyenneté mhm. ñu taxawu ci taxawaay boobu donc euh, bi may dem sax yàlla xam na ni waa force citoyenne yi sax yéeguñu ko mhm. waaw parce que nag man dama am habitude damay jël sama responsabilité parce que dama ni balaa dara dama nekk citoyen ba pare mhm. te nekk citoyen moom a gënal beneen cër bu ma am mhm. alors euh, dañuy tàmbalee rek euh, waxtaan bi euh, ci li nga xam ne mooy journée bi mais balaa ñuy ñëw la situation politique est très tendue beaucoup d'événements beaucoup de fronts Euh, ci li nga xam ne moom la doxinu réew mi jur jamono ji mais d'abord regard bi nga am si situation boobu balaa ñu ñëw ci journée 16 mars bi ak ni nga xam ne yëpp moom la jur ci ay conséquences. waaw situation bi moom sëñ Abdou Khad ñëpp gis na nañ ko seen bopp. Mm-hmm. que ñu ngi xeex ci benn régime boo xam ne lii yëpp li ko indi mooy nekk ci régime bu déplacé wu de dicta de démocratie en dictature. de façon glissante euh, répression yi am fii liberté yi ñu koy wàññi ndànk-ndànk mm. di museler presse bi di museler opposition bi di arrêter nit ñi systématiquement mm. euh, jëm ci instabilité bu jëm 2024 ci une troisième candidature voulue mm. un régime bu nga xam ni egg na ci fin de règne te bëggul céder la place président buy wax ni oui ni non di bëgg a tànn ay adversaire am bañ a céder la place bi nga xam ni dañ ko ko jox de façon démocratique euh, loolu yëpp moom moo lal lii ak itam justice bu indépendant wul justice bu faible état de droit bu nga xam ni dafa nekk un état maintenant de délinquants et un état policier moo waral situation bi nekk su tension parce que nag euh, c'est vrai dundoon nañ fi 2011 ay xat-xat mais ba 2011 amoon nañu ay rempart yu desoon. Mm-hmm. amoon nañu benn démocratie souffle démocratique boo xam ne mu ngi fi woon bu permettre woon ces libertés d'expression euh, loolu nag dafa nekk di di dañ di rocceeku loolu moo waral nag. am xëy na benn taxawaay bu nekk en face de ce régime pour refuser loolu noonu. Mm-hmm. en en en dépit de la présence de de la société civile amoon nañu taxawaay bu am solo en 2011 jàpp nga ne ba tey taxawaay boobu mu ngi fi. Euh, je crois que nag du man kese maay lu euh, tant que société civile wàññeeku bu mu wàññeeku ak doole bi. Mm-hmm. parce que société civile naam am na ñuy continuer di bay seen waar parce que la société civile c'est le peuple sénégalais ouais. la société civile ce n'est pas seulement des organisations mmh. tous les Sénégalais font partie de la société civile mais les organisations proprement parlées dañu subir aussi benn démantèlement organisé de l'État mmh. depuis le régime de Macky Sall en 2012 mmh. Euh, eu de grandes figures qui ont essayé de ñu sànni ci ñoom benn discrédit isoler leen écarter leen elle tente de rester là de se reconstruire euh, et loolu itam c'est le combat de tous les Sénégalais parce que ceux qui composent la société civile sont dans la société mmh. donc c'est aussi à la société sénégalaise de renforcer cette société civile et de lui redonner le pouvoir bu ñu amoon mais mm-hmm. ñëpp gis nañu ni société civile bu 2011 ak peut-être bu tey 2023 am na différence parce que booba la société civile était capable à elle-même de mener un combat et même d'avoir les, les politiques derrière mais maintenant on a tendance à voir que les politiques ñoo gën a jël l'espace public que cette société civile parce que aussi à un moment donné on les a pas sentis comme il fallait oui mais euh, pour delloo leen force boobu qu'est-ce que le peuple peut faire parce qu'on voit des figures de la société civile de 2011 qui sont toujours là bon c'est vrai qu'ils sont un peu à la retraite euh, si je dis retraite mooy <clears throat> énergie bi ñu amoon en 2011 taxawaay bi mënatuñu ko am physiquement mais qui observe qui dénonce et cetera qui alerte qui attire l'attention qui interpelle mais naka le peuple mën a def pour delloo société civile boobu force bi ma amoon. je crois que loolu ça va venir avec le temps. Mm-hmm. déjà euh, comme li ma la wax en répondant à l'appel. Oui. adhésion bi. la société civile aussi devra refaire ses preuves, mm -hmm. montrer que ni, elle n'est pas là juste pour des positionnements, mais qu'elle est bien réelle. Mm -hmm. Ça va se faire, je pense, avec le temps. Mhm. Alors, euh, bu ñu ñëwee euh, ci li nga xam ne moo ñu tax euh, toog fii moo tax tension bi gën a yokk ci espace politique bi moo tax sorti yi gën a bëri interpellation yi li nga xam ne mooy mise en garde yi des plaintes annoncées des hommes politiques. et des avocats même qui son dans un état de santé un peu euh, préoccupant euh, li nga xam ne moo xewoon démb ci corniche bi jamono bi ngeen di gunge euh, Ousmane Sonko vers le tribunal yaa ngi àndoon ak délégation bi en tout cas cortège bi tey lan nga ñu mën a wax parce qu'il y a plusieurs euh, faits yoo xam ne wax nañ ko yow mi nga xam ne actrice nga direct nga suivre nga ànd ci cortège bi lan nga ñu si mën a wax ci li nga xam ne moo xewoon démb. déjà sëñ euh, Abdou Khadre di wax ni li ma jëkk a ñaawlu premier mooy taxawaayu presse bi. Mhm. ci bis boobu. parce que 2011 euh, bi Sénégal tolloo fii lépp lu daan am. Mhm. grande organe de presse yëpp dañ ko daan couvrir du début à la fin. Mhm. parce que ñoom ay témoins oculaires lañu des événements ñoom ñooy le relais. de l'actualité entre les acteurs ñoom ñooy traiter ay spéculation am nit ñi di format ay information di sosal ay nit mais ñoom itam mun nañu tere ay bavure mhm. di am mun nañu permettre itam quand il y a des bavures ñu mun a am des éléments pour poursuivre ces bavures là mm malheureusement peut-être du seen faute kese parce euh, l'attitude de la police a été très violente, jusqu'à ne pas vouloir même qu'il y ait des reporters tout de suite. Il y a eu des images, des images, mm -hmm. mais le process n'a pas été euh, relaté. En tout cas, Manmine compte sur le terrain. Euh, J'ai vu qu'il y avait des, des étapes du Les images de ce qui se passait réellement en bas n'ont pas pu être montrées. parce que la police s'est arrangée pour écarter tout témoin avant de commencer ay bavure am. bavure yu mel nan. Euh, ce qui s'est passé déjà. Mm -hmm. il faut que nga may ma ma relater oui. les gens. Allez mm -hmm. du début à la fin naka la mbir yi tëddee. Mhm. man personnellement je suis arrivée au domicile de euh, Ousmane Sonko vers sept heures et demie. Mhm. très tôt. Il était en train de se préparer. J'ai été reçue par sa famille, ses épouses, ses, sa famille, ses enfants, ses proches, mmh. dans une ambiance vraiment très calme. Il n'y avait aucune animosité, c'était des gens qui se préparaient à aller répondre à la justice de façon normale. Tout le monde était habillé de façon normale. Autour de moi, j'ai vu personne, ni armé, ni en mode guérilla. Mmh. Les gens se sont organisés Certains se préparaient à accompagner seen leader d'autres seen parents d'autres seen proches d'autres seen xarit comme li ma la wax léegi man j'étais là en tant que citoyenne en tant que humaine en tant que nit parce que ay nit mm-hmm. dinañu ànd di politique ba léeg-léeg seeni diggante dépasser politique mm. parce que politique action ponctuelle la mais l'humanité c'est une action continue mm-hmm. de tout le temps Donc on a quitté le domicile avant 9h parce qu'il fallait partir, être au tribunal à 9h. Vers 8h30, on s'est mis en mouvement pour aller au niveau de, du tribunal. Donc jusque-là, je crois que tout est normal. Mhm. citoyen bu ñu convoqué ci kanamu yoon mu jóg ànd ak ay avocat ak ay mbokkam ak ay xaritam ak ay jéggi ñaaleem ak ay agent de sécurité mhm. pour dem wuy ji ma nekk man j'étais dans un véhicule avec un chauffeur un agent de sécurité et aussi une dame qui est du PASTEF un cadre chez mhm. les chez le PASTEF que j'avais pris avec moi parce que j'avais de la place dans le véhicule oui. euh, je crois que son nom de famille c'est Mbodj d'ailleurs plus tard elle aura été bien bénéfique parce que les images euh, de cette brutalité, c'est elle qui les a filmés. Parce qu'elle était à l'arrière. La de Sonko. Euh, non, elle ah, mhm. dans la voiture de Ousmane Sonko, il y son avocat et lui, mhm. comme d'habitude. Son protocole, comme d'habitude. Nous, on dans le convoi. Tikanam mhm. la ñu nekkoon on est sorti de là kër góor gi ku ko xam boo ci corniche bi tu passes par le grand rond-point de la VDN qu'on a traversé sans souci. Il y avait les forces de l'ordre. Mmh. Ils étaient là. Ils nous ont laissé traverser ce pont-là. Ils nous ont laissé avancer, rentrer dans Mermoz. Sortir de Mermoz, on est arrivé devant euh, le rond-point de Elton. Quand on est arrivé là, à mon auto avec mhm. le chef de protocole Djibi C'est là que la police ne duñu jaar à gauche dañuy jaar à droite comme ce qui s'était passé en 2021. duñu jaar à droite ou à gauche. duñu jaar à gauche dañuy jaar à droite c'est-à-dire voilà duñu jaar à gauche c'est tout droit pour aller en ville mais par l'université mais on va passer par le tunnel. c'est ça hein, de Soumbédioune. comme ce qui s'était passé en 2021. on dit un homme da ngay wuyu ji. mais da ngay am fooy jaar yoon bii ngay jaar doo jaar yoon bi mhm. nit ki am na sañ-sañu buñ ma ne da jaar yoon bi te yoon boobu dalul suma xel mën naa xam pour x raison pour x raison lu tax convoi bi ne bugguma jaar fii parce que y a eu des menaces peut-être parce qu'il y a des alertes peut-être parce que tout simplement sentiruloo ko ne jaaruma foofu pour le maintien de pour la sécurité de la personne euh, police d'où indiquer peut-être un itinéraire La police n'avait même pas à être là. Mmh. La police, depuis la veille, était là. Mmh. Moi, je me suis rendu là, veille sur les lieux. Je ne pouvais pas accéder comme toute personne ne pouvait accéder. Même des gens qui habitaient là étaient filtrés. Mmh. Depuis le 15, Ousmane Sonko était en résidence surveillée. Je crois que les images sont là. Mmh. loolu déjà foofu la abus commencé police su nekkutoon foofu je pense que convoi bi continuer dem am amul woon dara lu mu munoon am foofu lu dul ñu egg tribunal la police a fait la même chose que lu mu defoon en deux mille vingt et un mooy ne fii ngeen di jaar du ngeen jaar fi <coughs> après loolu les gens man je suis j'ai le véhicule où j'étais ci laa dem ci auto Ousmane Sonko mais à l'extérieur pendant qu'il était dans la voiture on était devant. Mm -hmm. En bouclier, comme on a toujours dit, que ci sunu xeex gisuñu luy nank luy taxati dans l'avenir ñu accepter mm-hmm. di seetaan un candidat politique ñu di ko écarter di ko brutaliser pendant ce temps les gens ont essayé le chef de protocole tout le monde a parlé avec les agents de police à leur dire bàyyi leen ñu ñu jaar fii ils ont refusé catégoriquement. pour quelle raison justement? ils ont refusé catégoriquement. Euh, après dinaa ñëw ci les raisons. parce que c'est ce qui a amené la brutalité. d'accord. ils ont refusé catégoriquement. et je signale que jusque-là nous n'étions ni armés ni en mode guérilla nous étions tous sunu ay loxo yi kese. désarmés mm-hmm. devant des forces de l'ordre armées jusqu'aux dents. ñu jóge ci loolu ñu waxtaan ñoom. essayer ñu ne duñu ko nangu la Ousmane Sonko a dit puisque bàyyiwu leen ma ma jaar fi ma bëgg jaar donc je fais demi-tour et je retourne chez moi mm -hmm. ils net doo jaar fi nga bëgg a jaar te doo dellu sa kër et pourquoi mm-hmm. xëccoo bi am foofu ñu bëgg ko interpeller garde di interposé ñu def demi tour Ousmane Sonko def demi tour ak otoom ñu jël seen bulldozer seen oto yooyu ñu yor ah les voitures là avec les pelles devant mhm. ils l'ont mis en blindé devant le véhicule pour lui bloquer le passage loolu doyu leen ñu écarté ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci oto oto bi yëpp y avait plus que man et quelques agents de sécurité mhm. qui étaient là les agents de sécurité se sont fait brutaliser il faut ñu wax ko. la garde rapprochée de la garde rapprochée. Mhm. am na si koo xam ni dañu ko dóor crosse ba crosse bi damm. ils ont tapé sur les gens. ils ont violenté les gens ils ont empoigné les gens de façon violente pour écarter leen pour accéder au véhicule de quelqu'un qui fait de tour pour dellu ci këram. Ils ont gazé, bien sûr, en premier lieu, les gens sur place. Quelques-uns ont tenu. Et ces gaz-là, mhm. c'est des gaz toxiques. Le chef de protocole en a pris, euh, Wali Bodjan, je crois, et d'autres en ont pris. Mais là, Ousmane Sonko était déjà en mode demi-tour pour retourner chez lui. Mmh. Et là, on leur a dit, mais laissez-le rentrer chez lui. Son avocat est venu leur dire, il n'est pas tenu de se rendre au tribunal parce que c'est juste une affaire de diffamation pour ma leeralal ko sénégalais nit moo convoqué nit du crime mhm. diffamation la soo demee teew dinañ lay atte soo demul teew dinañ la atte mhm. soo demee teew say avocat dinañ am sañ-sañu jël kàddu défendre la soo teewul say avocat amuñu sañ-sañu wax ba procès bi jeex mais su la neexee nga bañ a dem amul jugement bu wax ne il faut nga ñëw amul woon sax jugement bu wax ne dañ la war a takk tëj sa kër doo génn mais lépp ci jaay doole mais ñi ñu amoon en face de nous duñu ay police ay milice lañu ay criminels ambulants lañu parce que nag il faut ils étaient sous les tenues de la police. ils, ils étaient habillés en tenue. Mhm. mais ils n'avaient pas la tenue. ils n'avaient aucune tenue ni une tenue républicaine ni une tenue citoyenne ni même une tenue humaine. parce que quand on charge des gens désarmés. Mhm. nga jël ay cos di leen ko dóor. jël portant nga dóor nit ay bal blanc xam nga ni tenue bi nga sol moom la ko may. ndax bu du woon tenue bi nga sol doo sañ jël sa sa arme di ma ko tiire man hmm. te duma def dara mais jusque là amul kenn ku génne arm wala ku génne objet contendant ci groupe bi ñu nekkoon ñun amul hmm. ñu tiire ci sunu kaw comme de petits lapins comme si on n'était pas des citoyens wala ay nit comme ñoom les forces de désordre parce que il faut appeler un chat un chat ils ont été lamentables et parmi eux se sont déjà formés ñu naan ñii ay GIGN lañ ay BIP lañu ils sont censés être la corps d'élite de cette police de cette gendarmerie ñooñu ñoo doon dal suñu kaw ñooñu ñoo doon tirer à bout portant sur des manifestants bi ñu defee loolu ils ont gazé les gens ñu intercepté Ousmane Sonko en premier lieu pour yóbbu ko ci seen auto blindé bi La sécurité s'est interposée. Mmh. D'autres responsables militants se sont interposés. di récupérer ko ci la ñu ko dugal nag ci oto bi ma yoroon man boobu man j'étais ci otoom ci lañ ko dugal ci oto bi ma yoroon man. Mhm. la dame bi ma lay wax te sant Mbodj. mu ngi woon toujours ci oto bi ak chauffeur bi. parce que elle était en live direct. Mm -hmm. sur les réseaux sociaux. loolu moo tax mu continuer live bi loolu moo tax image yi ngeen gis ci biir oto bi ñu gis ko. après Guy Marius Sagna rejoindre leen ñu jàpp Ousmane Sonko dugal ko ci oto bi toujours dans le souci pas pour taxaw xeex ak force de l'ordre yi pas pour riposter mais toujours dans le souci de quitter les lieux et de rentrer chez lui mm-hmm. booba la véhicule bi ma yoroon man mu ngi nekkoon en face le Elton si rond-point bi a voulu faire demi-tour pour jël à gauche côté Mermoz pour revenir euh, ils ont pas voulu ils se sont ñu ñëwaat encore toujours les forces de l'ordre ñëwaat wër véhicule bi ne coûte que coûte il faut ñu jaay ko doole il faut ñu wone ni li ñuy wax fan yëpp force restera la loi il faut qu'ils montrent que ñoom c'est eux qui décident Mais alors qu'ils avaient aucune décision de la justice mmh. qui les obligeait à user de la force pour arrêter ni Ousmane Sonko ni violenter le convoi amul benn décision bu leen ko jox il fallait un un mandat d'amener wala un mandat d'arrêter wala au moins qu'on dise que que le juge dise amenez-le-moi mm-hmm. dans l'histoire politique du Sénégal amul benn procès de diffamation bu ñu obligé nit ki ñu convoqué nga dem wuyu mais bi ñu leen bloqué ne leen doo leen dem